bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala wa saxbihi ajmain mbokk yi déglu Sud FM seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ñi nekk ci biir réew mi ñi nga xam ne ñoo déglu te nekk bitim réew di leen ndokkeelaat bu baax ci bis bu màgg bi nga xam ne ci lañ nekk di bisu iid di bisu tabaski di bis boo xam ne bis bu bari aw yiw la ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal soppe yeek am di jàmm yi nga xam ne ñoo baaxoo ànd ak ñun ci émission yi nga xam ne mooy jàll ci rajo bi yépp tàmbalee ko ci waxtaan yi nga xam ne moom la Oustaz Alioune Sall di def jëm ci émission yi nga xam ne moom la Oustaz Alioune mbay di def naka noonu waxtaan yi nga xam ne moom la imaam Mamar Seck di def ak waxtaan yi nga xam ne ñu ngi ci ànd ak yéen saa su nekk mu mel ne eh, bis bi nga xam ne ci lañ nekk tey bis bu màgg la bis bu barkeel la bis bu doon bis bu bari am njàngat la ndax dañuy wax it ni ma ko waxee ci almisbaax léegi te loolu di luy dem ak dellu si waaye nag bari lool ay taxaw seetlu yoo xam ne jullit bi war na ko cee def saa su nekk taxaw seetlu yooyu moo tax ñu ñëw di ci wétti leen te yéen ci yoor yoor bi ndokkeel bu baax ilimaan yi nga xam ne ñooy taxaw ci kanam mbooloo yi ci bisu iid yi di amal li nga xam ne mooy julli yi amal li nga xam ne mooy xutba yi ñaan borom bi subxanahu wa taala mu fay leen ñaan ko mu defal ñu dégg defal ñu ak topp. ndokkeel bu baax a baax sëriñ si waaye ndokkeel bu baax borom kër yi ñaan borom bi subxanahu wa taala mu fay leen jamono metti na waaye bari na ci ñoom ñoo xam ne def nañ ay góorgóorlu ndeysaan borom bi subxanahu wa taala taw féexale leen ak suturaam ba ñu mujj am ab gàtt boo xam ne fas nañ ko yéenee lewetal ci bis bi yal na yàlla nangul leen lépp yal na yàlla rek tax dafa mel ne tabaski borom bi lim ci jublu mooy yëg-yëg bi ñu am bu ñu tabaski moo taxoon mu ne. lan yanaala llaaha luhumuhaa wala dimaa'uhaa walakin yanaaluhu taqwa minkum borom bi subhaanahu wa taala nee na moom day du deret ji moo ko yitteel du yàpp yi moo yitteel moo tax amu tànk buñ ko ci yët waaye li ko yitteel mooy ñu am jom li ko yitteel mooy ragal yàlla li ko yitteel mooy yëg-yëg bi nga xam ne moom lañ ciy am ñetti jaamu yàllaa ngi nii yoo xam ne dañoo tegaloo te biñ jàllee yàggut ba ca jiitu mooy koor borom bi dañoo waxoon ne laallakum tattaquun biñ ñëw biñ jógee ci koor gi e, jëm ci li nga xam ne mooy aj màkk gi mu ne ñu watazawadu fa inna xayra zaadi taqwa biñ noppee ci e, aj màkk gi ñëw ci tabaski gi mu ne ñu walakin yanaaluhu taqwa minkum kon day mel ne ñu ragal ko moom borom bi ak ñu bàyyi ko xel yitteel na ko lool yitteel na ko lool jëf yi ñuy jëf yépp bëgg nañu yëg ko ci te moom yëg-yëg biñ ko ci yëg rek la soxla waaye li ci des lépp suñ yëfi bopp la li ci des lépp euh, la cay jariñ ñun lay jariñ waaye ñu baalu àq bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu nëgëni si daaw ba nëgëni si ren ñaan borom bi subxanahu wa mu nangul ñu di leen wax wa kullu aamin wa antum bi xayr di ci ndokkeel bu baax ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal liggéey bi fii ci rajo bi ñu jiital leen ci ndokkeel yi ci bis bi. jiital ci suñu directeur Baye Omar Gueye ak mboolem ñi nga xam ne ñoo koy jàppale waaye toftal ci suñ mbokki techniciens yi nga xam ne duñ leen dégg ñuy àddu waaye nag ñooy ne ci ginnaaw xarala yi di taataan wax yi di ci def yitte ba muy agsi ci yéen ñoo ngi leen di ndokkeel bu baax a baax di ci ndokkeel mboolem kuy journaliste ci kër gi ñu ne ci administration bi waa service commercial ba ci ñiy taxaw ci bunt bi di wat di wattu kaaraange gi naka noonu auditeurs yi ku lim seen yitte ak seen yéene ak seen i jàppale dañut benn yoon di tegu ci loxol ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi ndax yaakaar ne bunt boobu man ngeen cee jaamu yàlla yàlla nañ ci am ngërëmul suñu borom subhanahu wa taala mbokk yi bisu tey bi bisu iid la bisu iid bisu feet la bisu lekk la bisu naan la bisu bég la bisu bégalante la waaye bisu bàkk borom bi subhanahu wa taala la allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allahu akbaru allahu akbaru walillahi allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan allahu akbar wuyu borom bi subhanahu wa taala nangul ko ne borom bi subhanahu wa taala moo gën a màgg lépp sujjootal ko àndak ñi nga xam ne ñooy sujjootkat yi bàkk ko bàkk ko waaye rendil ko itam te jëmmam tax rendil ko ngir dundal sunna sunna rendil ko ngir feetu feet gu rëy gii nga xamante ne jullit yi yépp ñoo ko moom mbokk yi moo tax ci yoor yoor bi ñu fas yéene waxtaane lu jëm ci wàllu jokk mbokk jokku mbokk daa bokk ci jaamu yàlla yu màgg yi daa bokk ci jikko yi nga xam ne jikko yu baax yi la daa bokk ci yi nga xamante ni nii day tënk ab société te itam yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu daa bokk ci li tax suñu borom subhaanahu wa taala ko dafa bokk ci li tax mu yónni ko ba muy wax naan arsalani bi silatil arxaami wa kasril awsaani wa an yuwaxada allahu laa yushraku bihi shay'a mu ne dañ maa yónni te bokk na ci li tax ñu yónni ko nee na mu jokk ak mbokk ak mabbu xërëm yi ak xiir nit ñi ci ñu wéetal borom bi subhaanahu wa taala bañ koo bokkaale ak kenn mbokk day mbir moo xam ne mbirum borom bi la subhaanahu wa taala kenn ku nekk askan wi bokk mbokk yim am xeet wi mbokk moom defut benn effort ngir bokku ci borom bi la soob mu boole ko ci jaarale ko ci diggante ndey ak baay am ñum fa jaarale olof yi dañuy wax ne sa mbokkum jullit mu ne rek sa mbokka ndax da ngeen a bokk doon ay jullit waaye bokk doon ay nit kon nga xam ne day dem ba nit bu jàkkaarloog nit di gis ak humanité ci moom ndax borom bi subxanahu wa taala mi ko bind. bu demee nag ba xam li ngeen bokk léegi doonatul sa mbokk waaye sa boppa sa bopp la ndax danga naan man ak moom ñoo bokk baay kon baay bi mooy kenn ki ci moom ngeen bàyyi ko. moom boo ko toppee day dellu ci baay yow it nga dellu ci nga xam ne jenn jëmmu ngeen kon ñun ñoo bokk maam mu nekkaat ak mbokk borom bi subxanahu wa taala réyal kon mbirum mbokk lool lool lool réyal gu rëy moo tax ca sóoratu nisa muy wax ne wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arxaam borom bi nee na ñu bàyyi ko xel ñu bàyyi ko xel ndax ca moom la ñuy laajante waaye ñu bàyyi xel li nga xam ne mooy mbokku gi ñu bàyyi mbokk gi xel ba bañ koo dagg wa taqul arxaam an taqtaaw loolu lay tekki eh, mooy eh, bàyyi xel yàlla ci ak mbokk mooy bañ koo dagg bañ koo dagg mbokk kenn du ko dog kenn du dog ak mbokk sànni jamono jii ci jamono yi gën a naqaree doxe ak mbokk la bokk ndax yu bari waaye ci jamono ji gën a yomba doxe ak mbokk la ndax jokkaloo mën naa am saa su nekk bu njëkkoon mag ñi dañ daan wari fos di dem diggante dëkk dëkk wala ñuy dugg ci ay wata di dem ci diggante dëkk ak dëkk di gane gi ak dundalu mbokk nga xam ne xamante léegi mën ngaa ñëw ci aw askan koo xamante ne ay doomi ndey lañ te duñ xamante bari na lool ci dëkk bi bari na lool ci biir mbokk gi te loolu bokkul woon ci li ñu am loolu kay ci li ñu dab la bokk nga xam ne danga naan kii de mook sama yaaye bokk ndey ak baay wala ñoo bokk bàyyi waaye ay doomam duñ la xam doo leen xam du ngeen seq dara kii de moo sama bàyyi ay doomi bàyyi lañ nga xam ne ay doomam say doomi bàyyi lañ waaye boo moytuwul du ngeen xamante amuñ ñu sax benn problème ci loolu nga xam ne ñun daal jàpp nañ ni intérêt yi daal ki nga bokkal ay intérêt ngeen bokk ab liggéey wala ngeen bokk euh, ay yëf yu jaxasoo ñooñu ngay seqal wala sax léeg-léeg séq ak ñi nga bokkalu dara moo lay gën a yombal séq ak say mbokk loolu moo mën naa nekk ndax yu baree bari yuy am ci biir ak mbokk ak ni ko olof euh, binde waaye jafe googu nga xam ne moom la ak mbokk jafe moo tax borom bi subxanahu wa taala bëgg ñu fonk ko bëgg mu nekk bunt boo xam ne buntu jaamu ko la dafa wax ne araximu mu muallaqatun bil arsh mbokk ma nga ñu wékk ca aras waaye dafa wax moom mbokk ne man wasala nii wasalahu llah képp koo xam ne jokk na ma borom bi subhaanahu wa taala jokk ko wa man xataa nii xataahu llah képp koo xam ne dog na ma man mbokk borom bi subhaanahu wa taala dog ko xadis boobu imaam muslim nettali nañu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam dénkuñu lool lool lool ñu farlu ci jokk ak mbokk man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yasil rahimahu nee na képp koo xam ne gëm na yàlla gëm na ne dana dajeeg moom ëllëg yowmal xiyaam nay jokk ak mbokk yëmul ci loolu waaye mu ne ittaqullaha wasilu arxamakum ragal leen yàlla te ngeen di jokk seenu mbokk yëmul ci loolu waaye mu ne bullu arxamakum walaw bisalaami jokku leen ak mbokk donte nuyoo la donte nuyoo la waaw donte envoyé message la nuyu ko sax def ko mbokk yi bisi yi dafa bokk ci liñ ci aada woo def ci réew mi mooy am occasion wu jokk mbokk maanaam ki nga daanu dégganteel nga déggante ci moom donte danga koy woo téléphone jëlal sa téléphone bi bul ne maa ko mujjee woon a woo saytaane naan la yaa ko mujjee woon a woo bu ko woo waaw saytaane naan la loo koy kar kar yaa ko mujjee woona a woo waaye yooyu yëpp bu ci sa yoon nekk waaw woo ko jokkal sa mbokk. ñi ñi nga xam ne sa tànk oyof na nga mën a jóg demal siyaare ji leen te yàlla tax demal siyaare ji yàlla tax bul ne du ma fa dem mel ne daa am lu ma fa bëgg wala bu ma fa demee ñu yaakaar ne daa am lu may wut ci moom mbokk moom mbokk la mbokk moom mbokk la ñuy dimbalee sax léegi nañ ma baal dimbali ab jàmbur léeg-léeg mu gën a yomb dimbali mbokk ndax mbokk boo ko defalee li nga ko defal da koo yeyoo ndax sa mbokk yéen ñaar yéen a bokk alal ji jàmbur nag moom da koy wax ba ñëpp yëg ko saytaane nag dalay naan euh, defal foofu defal foofu ba mu ba mu siiw ba ñëpp yëg ko moo tax jokk ak mbokk am solo lool lool lool lool jokk ak mbokk am na solo mbokk yi jokk ak mbokk da caa bokk dem siyaare ji ko da caa bokk joxe ay kado waaye da caa bokk lewet jëme ci say mbokk ak nooy jëme ci ñoom fecc sa kanam jëme ci ñoom teral say mbokk jëme ci ñoom waaye wormaal leen faman wasila rahimahu waaw faman wasila rahima wala faman wasala rahima di bégal say mbokk ak di leen jokk day indi texeg àdduna ak àllaaxira jokku mbokk sabab la ci yokkute wërsëg ak yaatule ko jokk ak mbokk day guddal aw fan jokk am mbokk day ci mbugal waaye jokk ak mbokk xéewal yu rëy rëy la yoo xam ne borom bi subxanahu wa taala mi ngi ko dencal ki nga xam ne day jokk ak mbokkam ëllëg yowmal xiyaam moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne inna ajala taati sawaaban silatu rahimi xatta inna ahlal bayti li yakunu fajaratan fa tanmu amwaaluhum wa yaksuru adaduhum isaa tawassalu jokk ak mbokk laysa shay'un atiu llaha fiihi ajala sawaaban min silati rahim amut dara dara dara lu nit di amee tiyaaba lu gënal borom bi subhaanahu wa jokk ak mbokk bokk na ci yi nga xam ne moo ko gënal yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na koo xam ne bëgg na aw wërsëgam yaatu aw wërsëgam yaatu tasaaroo nay jokk ak mbokk waaw man sarrahu an yabsuta lahu fi risqihi falyasil rahima nay jokk ak mbokk jokk ak mbokk bokk ci aw yiwu baree bari bisu tey bi bokk ci bis yi nga xam ne ni ma ko waxee léegi Euh, nit ki mën naa def effort tuuti man cee dox aw yiw wu rëy rëy jëme ko ci ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam jëme ko ci ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam moo xam dem siyaare ji la moo xam woote téléphone la moo xam yu baree bari yoo xamante ne mën naa am ci loolu nit du xeeb ay mbokkam waaw léeg-léeg nag euh, mbokk day am nuñ la xamee noo xamante ne bu fekkente ne defaru gi amut fi nga bëgg ñu teg la fa mën nañ la faa bañ a teg ndax mbokk moom noonu la defe naa ñi jàng tubaab ñooy wax ne euh, maanaam kenn du parfait ci sa biiri mbokk daanaka euh, dafa mel ne ñoom yu baree bari mën na cee am waaye loolu bu mu tax mukk nga dog leen ndax dog ak mbokk baaxut dox ak mbokk baaxut jokku mbokk daa bokk ci lii tax a dugg aljanna allahu akbar daa bokk ci lii tax a dugg aljanna jokku mbokk da cee bokk kon jar na ko ak loo ci mën a góobe daa bokk ci melokaanu ña nga xam ne ñooy niti aljana yi ñi nga xam ne dañuy jokk ak mbokk walladina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusala wa yaxfawna rabbahum wa yaxaafuuna suu alxisaab borom bi subxanahu wa taala nee na ñi nga xam ne dañuy jokku li leen borom bi digal waaye ñu ragal seen borom subxanahu wa taala ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ulaika lahum uqba daar ñooy ñi nga xamante ne ñooy am wàccuwaay ba nga xam ne mooy jannaatu adnin yadxuluunaha wa man salaxa min aabaihim wa azwaajihim wa durriyatihim walmalaikatu yadxuluuna alayhim min kulli baabin salaamun alaykum bima sabartum fa nicma uqba daar jokk ak mbokk daa bokk ci li tax a dugg aljanna jii nga xam ne moom la borom bi di wax xéewal ya nga xam ne moo ca nekk waaye mu boole ci biir aaya ja ne bima sabartum te maa ngi doon waxtaan ak yow ci muñ lépp loo xam ne dalay may tiyaaba léeg-léeg am ko mën naa jafe ndax seytaane day am lum ci laxas yu bari day am lum ci laxas yu bari moo tax yonent bi waxoon ci xadis ba ne dee leen dee leen dee leen nuyoo dee leen tasaare jàmm mooy dee leen nuyoo dee leen joxe aw ñam dee leen jokk ak mbokk dee leen dee leen julli guddi fekk nit ñaa ngi nelaw bu ngeen ko defee da ngeen dugg aljanna waaw bu ngeen ko defee dugg aljanna ci jàmm waaw afi salaam wa at ami taam wa silil arxam wa salli wannaasu niyaam summa duxul jannata bi salaam mi ngokk bu ko defee dugg aljanna yooyu daa bokk ci li koy maye nuyoo nuyoo mbokk yi bisu tey bi occasion la ci yow mi réyoon ba mënoo baalu àq nga xam ne tongoo woon nga ak nit rikkuwaay gaawantul dindi tongoo googu gaawantul dindi tongoo googu bu la dara jaral tongoo googu nga di ko fanaanoo tey jii wala jant bi di soo tëddañut profitool ci bis bi nga baalu ko àq profitool ci bis bi nga def ay teraanga bu ñuy joxante ay teraanga léegi tey ñu bëggante bu ñuy joxante ay kado léegi tey ñu bëggante yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax kado yi mën naa doon lu ñuy làmb ni di ko daj waaye mën naa doon ay yëg-yëg war ma jooy jox nit war ma jooy jox nit woo nit téléphone mu wuyu la nga waxtaan moom ba coupé te ko benn soxla lu dul ne ko dama la doon siyaare ak di la nemmeeku ak a jokku mbokk loolu da ci xol ci nit ku nite koo xamante ne mën naa rataxal ay diggante waaye fu téléphone bi sonné ñu ni di way woote baa jàmm la nga xam ne dafa am rek lu mu yëgle te loola mën naa bañ a doon sax yëgle bu neex loolu ëpp naa def ci biiru mbokk nañu jokku mbokk te am jotug mbokk yi na kenn ku nekk am sa say mbokk waaw na ku nekk am sa jotug say mbokk euh, loolu am na solo lool te itam ci li yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale la bokk te jokk ak mbokk ci xéewal yooyu la bokk sil man xataaka la yonent bi waxoon sil man xata xataaka waa a'ti man xaramaka wa arid aman zalamaka nee na na nga jokk ki nga xam ne dalaa dog waaw ki nga xam ne dalaa dog na nga ko jokk ki nga xam ne dafa mel ne moom amut ci yow soxla tongoona ak yow ma ngi lay jaay affaire mel na ne daa ber yoonu boppam na ko jokk na ko jokk waaye dog na ma dog naa ko ba muy tuut yowmal xiyaam ngeen di gisee te loolu damay faral di wax ne dafa yomb nit ki bàyyi la nga bàyyi ko moom yomb na li jafe kay mooy nit ki bàyyi la ba noppi yow nga daba ko ba indiwaat ko loolu mooy jikkoy sang loolu mooy jikkoy sang idfa billati hiya ahsan loolu la boroom bi wax nee na nañuy fa yoolu rafet nañuy fa yoolu rafet bul am jikko yu suufe bul am jikko yu suufe jikkoy détail la la gis ñoo xam ne ay mbokk lañ de yàlla xam na ne bañ gijee wax kenn xamul kañ la am ñoo xam ne ca maam ya sax lañ meroo woon mer ma ñëw ba ci sëddi yi mer ma ñëw ba ci sët yi kan moo nar a baax ci yéen kan moo nar a doon sang ci yéen koo xam ne mooy far nag ñëgg-ñëgg yooyu nga xam ne moo doxoon ci diggante yi ñëgg-ñëgg yoo xam ne moo doxoon ci diggante yi léeg-léeg am mbokk yu bokk genn kër te duñ tuddante ngeen baal ma nag léeg ñu doon ay doomi baay léeg-léeg ñu doon ay doomi ndey léeg-léeg ñu doon ay frère waaye mën nañoo dëkk ay ati ati ati ati at boo moytuwut di rombante gauche droite kenn ku nekk di jaay sa mo sa sa moroom sa bopp kenn ku ne di wane ne mën na maa dund saa yow te loolu mën naa nekk kenn ku ne mën ngaa dund te doo faale sa moroom ba yow mal xiyaam waaye rafetut gis nga bu ngeen jullee borom bi ne julli yi tegal fële bu ngeen wooree mu ne woor tegal fële amu ci soxla seen tabaski mii bu ngeen ko reyee borom bi ne awma ci soxla ba noppi ngeen di jaayante affaire seytaane ne ci diggante bi moom kontaan bay bëgga dee di bàkku rek kan ci yéen moo nar doon ku baax ki yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñaari nit buñ meroo ba tongoo ki gën ci ñoom mooy ki njëkk a nuyu moroomam waaw ki njëkk a wàcc ki njëkk dabu moroomam kooku moo gën ñàkkoo fayda waaye dangaa dégg waxtaan wi yëg ne war ngaa am tiyaaba nga dem dabu ji nga nekkaloon te loolu dafa dafa dafa mel dafa xewi waaw dafa mel dañoo toll ci jamono joo xam ne mer dafa war a xewi jamono joo xam ne gedd dafa war a xewi jamono joo xam ne tongoo dafa war a xewwi waaw ay bis gu jot nga dégg nit koo xam ne daa reer ba tëdd waaye bët setut ca fajar ga ñu ne faatu na ñu naan la ay malaise ko dalak daa amoon cardiaque ak daa nàngam ak daa di faatu mu jaare fa jeex ba faaw yi ñun ñu des fi nag ñun di tongoonte ci dund gu jeex gi adduna gi nga xam ne jeex na tàkk tàkk tàkk ba noppi léeg sax am ñoo xam ne ci alali ndono la ñuy jaare ñoom xuloo ba far tongoo nga xam ne gàtt xel mënta weesu loolu bala ñu fee dund ab diir dem fekki ki fi bàyyi woon alal ji lépp jeex kon kay li gënoon rafet mooy fexe ba jokkoo te juboo dafa neex meroo dafa metti meroo ci saytaane la bokk meroo moom sawara la sawara su sotti la mer ci boppam moo sawaraa moo ñàng lool juboo nag moom dafa àjjanaa waaw nekk ci jàmm di dimbulante di jàppalante wala bu kenn ku nekk demee ak boppam it li ñu war a séq ñu séq ko te ko rafetal loolu moo tax yonent bi ne del jokk ki nga xam ne moo la dog waaye del jox ki nga xam ne dalaa xañ waaw day tax kon réeroo du am ki la tooñ itam na ngay jëllale na ngay jëllale buñ ko defee bokk ci ñi nga xam ne ñoo gën te loolu mooy li ab jullit bu nekk war di sàkku allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbaru allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbaru allahu akbar walillahi alhamd mbokki jullit yi bisu tey bi làmmiñu jullit warta dañ ci di tudd baat yooyu warta dañ ci di bàkk boroomam subhaanahu wa taala ndax yëg-yëg yi nga xam ne moom lay am yàlla ku màgg la sañ-sañam bee tax tey mu defal ñu xéewal yi nga xam ne moom la ñu defal te wuutale ko koo xam ne dafa tëroon doomam nar koo ren ndax jaamoo ko boroomam ndax bëgg a am moom waaye nag mu doon ak feet te feet nag ab jullit da cay jànge dara moo tax imaam yi di xutba xutba yi am kenn ku nekk joxoñ fenn ci pénc mi ñii wax ci politique bi ñii wax ci dundu gi ñii wax ci diine ji ñii wax ci bidaa bi ñii wax ci bokkaale gu bari ci pénc mi ñii wax ci diggante yi moo tax ñuy wax ci diggante yi waaye ñuy wax ci wàllu ak mbokk jokk ak mbokk xéewal gu rëy la jokku mbokk goo xam ne dañ la caa dog day tax a jege borom bi subhaanahu wa taala day tax a jege borom bi subhaanahu wa taala day tax a am ak yëkkatiku day tax am ak yëkkatiku dog ak mbokk nag borom bi subhaanahu wa taala daf ñu koo moytandikuloo daf ñoo moytandikuloo ñuy dog ak mbokk ndax li ci nekk ci dansé li ci nekk ci loo xamante ne nii toskare la ak alkande te baaxut walladina yanquduuna ahda allahi min baadi mithaqihi wa yaqta'uuna ma amara allahu bihi an yuusala wa yufsiduuna fi l ard ulaika lahum llaana wa lahum suu daar borom bi subhaanahu wa taala nee na ñi nga xam ne dañuy fecci kóllëre yàlla gannaaw bañ ko fasanteeg moom borom bi subhaanahu wa taala boole la ci askan waaye nga dagg askan wa wacc nga dagg askan wa wàcc faale woo leen mën a dog ak mbokk di dog li nga xam ne moom la yàlla digale ci ngay jokk ko di dox di yàq ci suuf si borom bi nee na ñooñu ñooy am ëllëg yowmal xiyaam wàccuwaay bu bon ba ñee uquba daar waaye ñii nag ñoom ñooy am soo ut daar nañ ci yàlla musal yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na koo xam ne day dog ak mbokk du dugg aljanna laa yadxulul jannata xaatiu rahimi koo xam ne day dog ak mbokk du dugg aljanna te léeg-léeg mu am nag koo xamante ne mbokk gi moom waxuma moom mu jokk ko waaye ku ko déglu sax da nga dul jokkati mbokk gi moom day ni ci mbokk gi di fëllëxe di yàq rek mbokk moo mbokk goo dem am na yàqkat mbokk goo dem am na bu yàqkat moo tax kàccoor bu ne ci biiru mbokk dañ koy weer mbokk muy coppit ci bii ndonki bii di yàq rek nga xam ne bu nit doon ngoroo ci mbokk gi sax ñu gàntal ko moom bu ko commentaire ba bàyyi rek boo moytu tas askan wi tas askan wi ndax mbokk yu ne ak la leen boole mbokk yu ne ak la leen boole moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne laa yadxulul jannata xaatiu rahimin waaw dokkatu mbokk du dugg al aljanna du dugg ajjana waaw ki nga xam ne day dogu mbokk borom bi subhaanahu wa taala tëkku na ko mere na ko mere na ko du ko dugal aljana mukk boole na ko ci ña nga xam ne ñoo gën a gannaawe boole na ko ci ña nga xam ne ñoo gën a gannaawe yal nañ ci yàlla musal yal nañ yàlla musal ci ñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy dog ak mbokk waaye mu boole ñu ci ñi nga xam ne dañuy jokk ak mbokk waaw ak nag lu leen mën a jural ak lu leen mën a jural ndax jokk ak mbokk daa bokk ci dellu ci dëgg daa bokk ci dellu ci dëgg daa bokk ci dellu ci ngëneel yi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala nit keroo bi nga xamante ne dafa bind aadama yëgal mbiram ñi nga xam ne ñooy malaayika yi wa id qaala rabbuka lil malaikati inni jaacilun fi l ardi xalifa malaaka ya lañ ko tontu mooy atajaalu fiiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ndax dangay yóbbu ci suuf koo xam ne bu fa demee day yàq suuf si yàq suuf gi mooy du am soxla ci diggante ak nit du am soxla ci digganteem ak nit bay am soxla digganteem ak yow borom bi daa bëgg ñu sàmm suñ diggante yi te ànd dem ci moom waaw daa bëgg ñu sàmm suñ diggante yi te ànd dem ci moom moo tax fi mu ne mënoon na ñun ñëpp ñu sosu te duñ jaar ci ndey ak baay ndax yàlla mën na ko ni mu binde aadama binde noonu xawaa mënoon naa bind noonu doomu aadama yépp waaye bëgg ñu doon ay càllale nag am fuñ jaar ba noppi joxante loxo jàppante moo tax mu wutal ñu ay nday wutal ñu ay baay ñooñu taxaw doone askan nga xam ne àdduna ñaar fi nekk ndey ak baay ñi ca bàyyi koo ñëpp di ñun koo topp rek mu dellu ca ke nga topp kii mu dellu ca ke bañ mujj doon kenn malaaka yi nag waxoon nañ yàlla ne ko ñii nga fa nar a yóbbu duñu am soxla ci loolu te yàlla daa bëgg nag ñu sàmm loolu daa bëgg ñu sàmm loolu daa bëgg ñu ñu góorgóorlu ci loolu daa bëgg ñu góorgóorlu ci loolu moo tax bu ñu delloo ci eh, waxtaane waat suñu bopp te léeg-léeg may wax ne kenn ku nekk daa war di dellu ci boppam dellu ci suñu bopp boo ko déggee tey sax mu jot waaye boo ko gënee yëgal ba ci keroog bi nga xamante ne eh, suñu maam aadama bu baax mi alayhi salaam gis nga taxawaay bi nga xamante ne moom la am ci kanam boromam borom bi yëkkati ko teg ko ci kaw jaamam yu sell yii nga xam ne ñoom yaakaar nañ ne li yàlla di doyee ab jaam mooy sàbbaal ko mooy sant ko mooy sellal ko te borom bi subxanahu wa taala am na leneen lum ñu doyee ndax loolu da koo jëriñu dara loolu da koo jëriñu dara buñ ko ko defalee mu fay ñu buñ ko ko defalut it du tee mu doon kam doon maanaam àdduna bépp buñ àndee woon ko ginnaaw du tee nguuram ga di nguuram ga moom muy borom bi subxanahu wa taala du tee ñooña di jaam ak luñ jàgg jàgg bu ñëpp àndee ne koy ñaay yàlla sukkandiku nërëm. du yokk dara ca tedd nga am nga waaye yow nag boo ko yokkee yëkkati wala nga jéem ko nga yëkkati koo ca ba faaw moo tax ñoom malaaka ya bañ koy tontu ne ko wa nax nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuxaddisu lak mu ne leen inni aalamu maa la taalamuun waaye borom bi subhaanahu wa taala jox aadama xam-xam jox aadama xam-xam xam-xam boobu loolu lay jariñ mbokk yi xam-xam boobu daa war a yee am xel daa war a yee am xel nit du bàyyi ma nit du bàyyi ma am xel li muy jariñ mooy lu ñëw lu ne nga am loo ca jànge tey jii ñi ngi tër ay xar di rendi ñi ngi fees ay xar ñi ngi lakk ak ndawal ñi ngi solu di dem ak ñëw lan lañ ciy jànge lan lañ ciy jànge lan lañ ciy jànge kan mooy sacrifié wul borom bi subhaanahu wa taala ni Ibrahima ak Ismaayila nangoo sacrifié wu ngir ndigalul boromam ngir ndigalul seen borom subhaanahu wa penc moo xam ne jikko ya mën naa yàqu ñu desal ginnaaw borom bi subhaanahu wa taala diine ji doon jaar sàkk kenn ku nekk di ca def lu la neex. kan mooy nangoo sacrifié wu défendre lislaam jaral ko luñ lum ca góobee gar ko luñ ko wax mu jël lum ko wax mu jël ana kan mooy défendre l'islam ndax ñun ay jullit lañ yoo xam ne dañuy tànn rek ci diine ji li nga xam ne moo dëppoog suñ bakkan dëppoog suñu aada ñu nekk ci tabaski di sunna ñun ñëpp ñu nekk ci ba xar yi fees dell ci dëkk bi coow li di lenn dëkk bépp di rëg-rëg yi ndax waajal tabaski gi te tabaski kat sunna la suñu borom bi subxanahu wa taala gàll. waaye farata yi tege nag moom diine ji nga xam ne moo gën a ñoŋ lépp te jaraloon suñ bàyyee ca diine ñuy asaxaabatul kiram ñu joxe seeni bakkan joxe seeni ru diine jooju moom nekk pëccëxoo te moone bu buñ jaloo ci ginnaaw tuuti ci at yu yàggut mag ñi nga xam ne ñoom lañ doon défendre diine jooju jaral na leen lu ne jaraloon na leen lu ne boo posé question laaj ku mel ne Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba nga ne moom lan la tubaab bi yaakaaroon ne moom la nar a def ba tax mu teg ko lim ko teg ba tax mu jàpp ko diir bi mu ko jàpp ba tax mu jaar moom fi mu moom fépp nga xam ne doonut kum njortu ne day ubbi daara rek toog di jàngale wala koo xam ne day def rek li nga xam ne moom la fekkoon waaye jàpp na ne diine ji nga xam ne mooy moom la yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale te góor yàlla yàgg koo taxawal te di ci góorgóorlu te mu ñëw ngir defar nit te diine jooju yëmut ci julli ak sëlmal dong wala ubbi kaamil le wàccee ko dem toog dong waaye dundub doomu aadama lépp lay réglé moom lañ gis ne daa yor projet de société boo xamante ne buñ ko bàyyee mu tabax ko sénégalais bi ñu tabax day doon sénégalais boo xam ne day yàlla day doon sénégalais boo xamante ne nii day am conscience maanaam ci àdduna waaye day am gisin wu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaatu ci politique gu diine ci politique gu diine xoolal nit ñu ko jabolisee tey ba sax boo ci waxtaan nii sax léegi tey ñu ne la état islamique la waa ji di woote waa ji day woote day woote yëf daal lay tudde ab terroriste tudde la leneen tudde la leneen tudde la leneen noonu la ñuy tëwaree ba dañ koo séddoo ba kilifa yu baree baree baree bare léeg-léeg nga ñëw waaye kilifa gi di kilifa kër kenn ku nekk am kër goo xamante ne nii moom lay défendre waaye diine ji moom ne ci digg bi léeg ñu bàyyi ko noonu ba fàtte ko borom bi subhanahu wa taala bëggewu ko noonu daa bëgg doomu aadama doon koo xam ne ku conscient la te loolu daa bokk ci li nga xam ne moom la ñuy jàngee ci tabaski daa bokk ci loolu la ñuy jàngee ci tabaski mooy euh, suñu borom subhanahu wa taala mi nga xamante ne moom dong mooy yàlla daa bëgg ñuy delluwaat ci moom buñ juumee delluwaat ci moom nan la ñuy delloo ci borom bi subhaanahu wa taala xoolal aay yi lay jàngal keroog bi nga xamante ne wax na euh, malaaka malaaka wax delloo borom bi subhaanahu wa taala tontu leen malaaka ya xam ne ñoo juum dañoo dellu ca borom ba ca saasa ca saasa la malaaka wax ne subhaanaka laa ilma la illa ma allamtana innaka anta al alimul hakim waaw subhaanaka laa ilma lana dañoo gaaw fa saarau rajata min al afwa wa baadaru al inaabata min al dañoo gaaw dellu ci borom bi subhaanahu wa ci njuumte la gaaw tuub ci rëcc yi nga xam ne moom lañ rëcc waaye way mbokk yi buñ taañaañal rek buñ taañaañal rek ndax dund gi jeex na dund gi jeex na léegi tey nga naan borom bi subhaanahu wa bàyyi ma fi tuuti boo ma fi bàyyee danaa saraxe boo ma fi bàyyee danaa julli boo ma fi bàyyee danaa góorgóorlu boo ma fi bàyyee danaa bokk ci ñi nga xam ne dañuy défendre diine ji kon gaawantu baax na dellu ci dëgg baax na kero bi nga xamante ne suñ maam aadama ak soxnaam xawa nekk nañ biir aljanna ba def fa ak mooy yàlla ngir ñu dellu ci dëgg nangu ne dañoo juum dañoo jébbal seen bopp seen borom ndax dañ leen a woo wa naadaahuma rabbuhuma alam anhaku alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytaana lakuma aduwun mubin borom bi woo leen aadama ak xawaa ne leen waaw yéen ndax terewuma leen woon garab gi waxuma leen woon bu leen ko jege waxuma leen woon ne leen shaytaane seenum noon la moytu leen ko ca saasa rek dañoo delluwaat ci dëgg rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin ca saas rek dañoo wax borom bi subhanahu wa taala ne ko yàlla ñun de tooñ nañ suñ bopp ñun de tooñ nañ suñ bopp allahu akbar waaw ñaata ñoo tooñ seen bopp ku def bàkkaar wala nga defu mooy yàlla sa bopp rek nga tooñ tooñoo yàlla waaw léeg ñun la jàdd nga yoon wi waaye boo dellu si wut yaa xala sànku boo dellu siwut yaa fa xala fekk bukki yaa njaay àll ya yaa nara doon ki nga xam ne yaa dugg ci toskade moo tax ñoom dañoo dellu si ci dëgg wax borom bi subhaanahu wa taala ne ko wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasiriin yàlla ñun de boo ñu suturaalu te yërëm ñu danañ bokk ci ñi nga xamante ne ñu perte ñi lañ yàlla nañ yàlla musal ci li nga xamante ne mooy ak perte yàlla nañ ci yàlla musal kon mbokk yi nañ delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala tuub bisu tey bi bis bu barkeel la bisu yiw la bis bu ñuy dégge borom bi subhaanahu wa taala la waaye bis bu ñu tuub la bis bu ñuy delluwaat ci moom la mbokki yuusufa ya dañoo dem ba mu yàgg ñoom booy xool ñu xam ne dañoo def ay tooñaange dañoo tooñ seen borom subhaanahu wa waaye ñu nangu nag seen bàkkaar gannaaw bañ defee lañ def ca yuusufa waaye dem nañ ba xam ne ñoom ñoo tooñ ñu ne tallaahi laqad laqad asharaka allahu alayna wa in kunna la xaatiin looloo ma ciiteel wa in kunna la xaatiin ñun day ay tooñkat lañ kon nit da ngay toll foo xam ne da ngay nangu nag da ngay nangu sa tooñ da ngay nangu sa yaafuus da ngay nangu say bàkkaar dangay nangu say bàkkaar ñun àggatuñ ci def bàkkaar ñu baree bari nag rek laa bëgg a wax waaye jubluma ci ñëpp waaye yëmatoo ci di ko def waaye da nga koy jéem a layal da ngay layal yow bu dee ab njabarkan nga da ngay jéem a layal sa njabar gi bu dee gisaane kat nga da ngay jéem a layal sa gisaane yi ba koo daganal bu dee sàcc si sax dañuy jéem a layal seen sàcc yi waaw di këpp keesu réew mi di lekk waaye bëgg a ne système bi la ak réew mi kenn mënta mucc ci loolu waaw di bëgga def lu xaraam waaye lu xaraam li yaa koy jéema la layalal sa bopp nga xam ne boole nga ñaari bàkkaar ñu njëkk ña nga xamante ne dañ doon dellu ci seen borom subhaanahu wa taala daanuñu ko defee noonu soxna buur ba jigéen la waaye ba mu sàkkoo yuusuf jaar ak moom fa mu jaar yuusuf bañ bañ tëj ko bañ demee ba dara desul lu yuusuf war a génn nag doon ab leader setal penc mi daa yëg jii wax ne maa sàkk woon yuusufa gàcca la waaye nag setal yuusufa toll na ni te loolooy dëgg te loolooy dëgg setal yusufa ci tuuma ji toll na noonu moo tax aana la wax al aana xas-xasal xaqu ana raawattuhu an nafsihi wa innahu la min allahu akbar waaw soxna si yi nga xamante ne mooy imraatul aziz moo wax ne ca dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg fa deful dara yusufa mosumaa bëgg a violé mosumaa sàkku mosta doon koo xamante ne ab ndi naka su dul noonu la doon def ci kër gi man mii kay maa ko doon sàkku man mii maa ko doon sàkku xoolal xoolal xoolal wax jii ni méttee xoolal wax jii ni méttee nga xam ne ki koy wax bu ko waxee ba noppi penc mépp tasaare ko der ba ab deram yàqu ngi di ko jaabaa jonge leen lu nekk mu mën koo dégg waaye ànd loolu yëpp mu ne faalewu ma loolu damay dellu ci sama borom subhaanahu wa taala tuub samay bàkkaar jaral na ma loolu waaye itam setal yuusufa jaral na ma loolu ndax ci dëgg-dëgg maa ko tooñ mbokk yi ñaata nit ñoo tuumaal nit dem ba mu yàgg nga xam ne la nga ko doon tuumaal du dëgg deram baa ngi nii yàqu ñépp di ko xoole te yow benn baat rek boo ko waxoon mu dellu siwaat ci société bi fa soo ko yéenee wax ndax jàpp na yow boo ko waxee dangaa tuuti waaw di rëy rëylu rek di yëkkatiku rek di nuur ca la nga nekkoon rek loolu lu soree sore li nga xamante ne nii euh, ak yàqu la te loolu baaxul dellu si ci euh, borom bi subhaanahu wa taala muy dëgg lu am solo la gaa ñi nga xam ne ñoo bayoon tool ba bañ demee ba yëg seen njuumte li ñoom la ñuy wax asxaabul janna asxaabul janna euh, dañoo bay seenu tool wala dañ koo donnoo ci seen baay mais seen baay da ko daan def bu ñoree mu sedd ci ñi nga xam ne ñooy fuqaraa yi ak masaakiin yi jox leen ci seeni àq ñii nag dañoo bañ loolu ñi nag dañoo bañ loolu façon yéene yolleeku ci guddi ga rek buddi ñambi ja wala watt mango ji jaay ko balaa faqir yaa xëy borom bi subxanahu wa taala ginnaawu leen yàq tool ba yépp waaye nuñ def dañoo dellu ci seen borom subxanahu wa taala gannaaw bañ xamee ne seeni bàkkaar moo tax ñu am toroxtaange ji waaw ndax ñun li ñuy dund ci réew mi ci ay jafe-jafe du suñ bàkkaar yu bari yi moo tax kañ lañ koy yëg nag àndandoo tuub àndandoo tuub. dellu siwaat ci borom bi subhaanahu wa taala tàllalaat ko suñu loxo bàyyee ko suñu bopp bàyyee ko suñu bopp bàkku ko bàyyee ko suñu bopp bàkku ko moo tax alquran di ñu wax ci suratul xalam xaalu subhaana rabbina inna kunna zalimin ñoom loolu lañ wax waaw bañ bëggee yolleeku euh, lekk tool ba bàyyi gaaya borom bi yàq tool ba seen ginnaaw dañ ne gàcce ngaalaamaa yàlla ñun de ay tooñkat lañ fa aqbala baaduhum ala baadin yatalaawamuun qaalu yaa waylanaa inna kunna taaxiin adaa rabbuna an yubdilanaa xayran minha inna ila rabbina raaxibuun mu mel ne léeg-léeg ñu toll foofu waaw léeg-léeg ñu toll foofu léeg-léeg ñu toll foo xamante ne yi ñu gis nii dëgg-dëgg dangay gis ne bokkuñu li ñu war a gis dañuy mel ne cata ñu dugg ci fànn yëpp cata ñu dugg ci fànn yëpp waaye nag bu ñu wut solution kañ lañ ciy boole borom bi subhaanahu wa taala yonent yàlla Muusa alayhi salaam ci delluwaat ci borom bi subxanahu wa ak tuubal ko gis nga ba mu laajee borom bi ne ko dama laa bëgg a gis dama laa bëgg a gis la mu rek mooy tuub ba mu xamee ne lim laaj ëpp na ndax rabbi arini anzur ilayka xaala lan taraani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makaanahu fa sawfa taraani waaye falamma tajalla rabbuhu liljabali jaalahu dakka wa xarra muusa sayqa falamma afaaqa qaala subhaanaka tubtu ilayk wa ana awwalul mu'minin allahu akbar waaw borom bi subhaanahu wa taala dama bëgg laa bëgg a gis yàlla ne ko dooma gis ndax foo ma mën a eh, eh, recevoir moo fi amut Moussa xelam ne yar ca montagne mi ndax rëyaay gi borom bi ne ko kon xaaral ma feeñu ko bu ma ko nee maa ngi ñëw su ma manee supporter rek ma ñëw ba mu defee ay tëjali yaatam ca montagne ma montagne ma moom daa mabbu xëm daa mabbu moñoxoo Moussa daanu xëm ba mu ximmulikoo la ne yàlla ma ëppël waaw maa ëppal rek waaye jox gi ma jox kàddu di wax ak man may dégg doy na sëkk soxlawut woon ma di ci yokk loolu waaw soxlawut ma di ci ma di ci yokk loolu yàlla nuux alayhi salaam ci wàllu dellu ci dëgg da ngay xool noox nam delloo ca boroomam subhaanahu wa taala kero ba mu wootee wooteem bu yàgg ba lu ne mu daj ko ci njabootam nga bañ ba alkandi ñëwee mu war a dem geesu gis doomam mu bokk ca ña nga xam ne dañoo lànk te mu wóor ko ne doomam daa nara a alku doom ji daa nar a bokk ci ñuy alku tey noox daa ñaan boroomam wa naada nuuhun rabbahu waw nuux da daa di woo boroomam ne ko yàlla eh, innabnii min ahli wa inna waxdaka alxaqu wa anta axkamul xaakimin waaw yàlla yaa ma wax naa daaj gaal dugal ci sama ñoñ ñépp dugal ci sama njaboot a ah, dugal naa ñépp sama doom ji duggut sama doom ji nar naa bokk ci ñuy alku te yow kat loo digge dëgg la yaa dàq àtte ñépp laay sama doom ji dana alku yàlla jàpp ci borom bi ne ko noox yaa noox innahu laysa min ahlika sa doom ji bokkut ci sa njaboot loolu yàlla dong ko mën a wax waaw sa doom ji bokkut ci sa njaboot gi waaw da jur waaye bokku leen programme da ko jur léeg nga dem ci kër gis doom joo xam ne bokkut ak baayam programme baayam ni mu baaxee waaye moom tubaarkàlla bokkut ak moom programme amu ci soxla amu soxla loolu sax ci li gën la bokk bàyyi bu baax àdduna bépp di ñëw ci moom léeg di wut ci moom xam ñii di wut ci moom jikko ñii di wut ci moom ay conseil doomam jàppe baayam moom góor gu yeewuwut nga xam ne amut ci moom soxla amut ci moom soxla du sa njaboot bokkut ci yow yor santu nit léeg-léeg taxut bokk taxut bokk ci programme am ñun bi ñu jàppee ne ku yor santu nit rek ci programme man programme am nga bokk ci lañ tàmbalee juum ci lañ tàmbalee juum am na koo xamante ne daa am sens daa am sens ñu baax jur ko waaye moom defut ay effort ngir baax defut ay effort ngir baax baax nit da koy sabablu nit day góorgóorlu ngir baax am sansu bokk fu baax nag dana yombal nit ak mbaax ndax pinc mi tey am na sant woo xam ne wala sant yoo xam ne boo ko fi amee tuuti boo ko góorgóorloo baax ndax safaan ba dem ci day jafe ci yow ndax ku la fa seen xeeb la nga di ko moytu far baax te ko te koo xam ne bañ ngaa dem ca safaan ba léegi tey nga dem ca lu yiw la te boo ca demee baax waaye nag moo ma jur rek bokk naa sant walaa yor rek baax naa léeg-léeg nag ñu àtte ci nit te fekk tollut ne fañ ko teg àggu fa fañ ko teg àggu fa ay alquran ji daa bokk ci li ko firndeel daa bokk ci li ko firndeel lay min ahlika la ko wax te nooxay baayam nooxa jur doom ji waaye doom ji daa nekkut ci pro daa nekkut ci programme noox waaw noox day ku baax déggal boromam subhanahu wa taala moom ñu ko gëm doom ji jàgg jàgg jàgg di kàccoor borom bi subhanahu wa taala ne ko bokkut ci yow bokkut ci yow de te noox nag attention bul duggati ci loolu li tax bokkut ci yow mooy sa doom ji ay jëfam daa baaxut innahu amalun xayru saalix nooy comparé kon koo xam ne da ngay jàpp ne kon danga naan mooy sama kilifa di ko tudde tur wi ngay tudde ñi nga xamante ne ñoom nga yaakaar waaye moom ay jëfam yi nga gis ci kaw te nit ki li ci kaw lañ ko àtteloo la ci biir ñu bàyyi koog boroomam dara baaxu ci moo tax yàlla ne ko fala tasal ni ma lay laka bihi ilmun inni aizuka an takuna min al jahilin waaw bul duggati ci lu sa yoon nekkut waaw ci lu sa yoon nekkul naan ay affaire u doom ay affaire yooyu yow daal nuux ñi bokk ci sa programme bii ñooñ ñooy sa njaboot ak nuñ mën a sant ak fuñ mën a bokk ñi ci bokkul nag donte yaa ko jur bul dugg ci détail yooyu kon da ngay bokk ci ñi nga xam ne ay jaahil lañ loolu mbirum ñi nga xam ne xamuñu dara lañ nuux nag wax boroomam ne ko rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa lii bihi ilmun wa illaa taxfir lii wa tarxam nii akun min alxaafiriin allahu akbar waaw ne ko yàlla maa ngi lay ñaan maa ngi lay ñaan nga musal ma ci ma bañ a duggati ci loo xam ne aw ma ci benn xam-xam waaw lu sama yoon nekkut boo ma jéggalut nag te yërëm ma danaa bokk ci ñi nga xam ne dañoo pert mbokk yi misaal yooyu liñ ci mën a indi misaal yu baree bari la waaye liñ ci jublu rek mooy dellu ci borom bi subhaanahu wa taala dellu ci borom bi subhaanahu dellu ci borom bi subhaanahu wa taala loolu mooy solo si nga xamante ne ab jullit war na ci góorgóorlu kemt laayal kàttanam tey nag bis la boo xam ne bisu iid la bisu lekk la bisu naan la bisu baalonte àq la bisu baalonte àq la nañu baalonte àq nañ baalonte àq ñun ñëpp ku la ne baal naa la baal ma àq nee ko baal naa la koo seen muy ñëw na nga fecc sa kanam tey daal loo naqari deret naqari deret rik waaye nag del muñ nag tey moom del muñ waaw bañ nañ ko fa sax Eh, eh, eh, danañ di xar mi sëñ bi lakk yëf yi ndax bëgg nga neex deret neexal deret nag neexal deret nag del muuñ waaw toogal ci kër gi nag génnal toog waxtaan ak sa njaboot gi waaw génn toog waxtaan ñu toog nag bokk nag waxtaan kafre lekkandoo waaw lekkandoo kafre maslaha sa buntu kër gi nga daan tëj rek ràpp tijji ko nag waaw tijji ko nit ñi mën a ñëw siyaare la nga siyaare leen waaw nga jonjoo ak ñoom te xam ne nit nit dongay garabam waaw bis bi loolu daa bokk ci li nga xam ne war nañ ko cee def ñi nga xam ne dañ laa sori ta nga man leen a woowoo leen ñi nga xam ne dañ laa envoyé message ta nga mën koo liir liir ko waaye jokkal ak mbokk sa kemtalaayal kattan jokkal sa mbokk sa kemtalaayal kattan ndax loolu ci njariñ yi nga xam ne bis bi am na ko ci la bokk am na ñu jógee diggante dëkk ak dëkk dem julli ji am na ñoo xamante ne ñu ngi ci seeni dëkk dem gëj fa saan ñëw nag di war a jokk jonjoo ak nit ñi war a maslaa ak ñoom waaw war a maslaa ak ñoom loolu moom ñun ci lañ bokk ndax jamono ji may def waxtaan wi fi mu nekk nii maa ngi nii ci usnul maab eh, ci Jurbel ñëw eh, ci suñu eh, kër way jur fas yéene amale feet gi ne ñëpp maa ngi ndokkeel ñi nga xam ne ñoom ñëpp yàlla defal na leen xéewal yu tol noonu am ñoo xamante ne nag ña nga toog fañ toog ñoom itam di ko fa amale ca nañ ko fa amale am ñu nekk bitim réew yu baree baree baree bari mënuñ ko waaye dañ koy nam ndax na réew ya bindoo ala bis bi du benn dong dafa ñëw tey waaye ñëwoon na daaw te dina ñëw déwén yàlla nañ bokk ci ñi nga xam ne dinañ ko fekkee déwén yàlla nañ bokk ci ñi nga xam ne borom bi subxanahu wa taala dana leen nangul ñoo ngi leen di baalu àq ñoo ngi leen di baal ñoo ngi ñaan borom bi subxanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñoo ngi siyaare bu baax a baax a baax mboolem imaam yi nga xam ne ñoo taxaw ci kanam mbooloo yi mboolem sëriñ si nga xam ne ñoo taxaw ci kanam mbooloo yi jiite julli yi eh, xutba waxtaan wi am solo yi yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal na yàlla def ko ci réew yi ñu wër ay bis gii rek daanaka ci la campagne bi daal di ubbi ñu jëm ci élection yi loolu itam yàgg na fee am biitim day am mu jàllaat yeneen am kon nag yal na ci borom bi def jàmm yal nañ sabablu jàmm ba jàmm am waaye yal na lépp tegu ci dëgg yal na leer nañ li nga xam ne bu amee jig réew mi e, jëmale réew mi kanam ci wàllu koom-koom jëmale réew mi kanam ci wàllu jikko yu baax jëmale wi réew mi kanam ci wàllu dal yal na ko borom bi subxanahu wa taala amale noonu te lépp doon suñu njiglaay ñoo ngi siyaare soppe yépp ak am di jàmm yépp su ma ko mënoon damay lim benn par benn di leen baalo àq waaye su ma duggee ci loolu duma ci génn waaye yéen ñépp maa ngi leen di baalo àq maa ngi leen di baale àq juma ma yëg ak juma ma yëgul man baal naa leen yal nañu yàlla boole jéggal léeg di waxtaan dafa doy waar. waaye liñ ci jublu rek mooy jéem a wax loo xam ne dana amal njariñ nit ñi yàlla nañ ko yàlla boole defal maa ngi beral ab siyaar baax baax Oustaz Alioune Sall di ko ndokkeel foofu ci Mbàkke Bawal moom fa muy eh, jàllale ak julleem di ko siyaare baax di siyaar ak njabootam di ko baalu àq ci bis bi naka noonu Oustaz Alioune mbay moom itam foofu ci Dalifort ñu ngi lay baalo ak di baalu àq Imam sekk Seck fële ca Tëngéej noonu la ñuy baaloo àq itam suñu directeur Baye Omar diko ko ndokkeel bu baax a baax ci feet gi di ko wax mu def ndànk ci xar mi ndokkeel équipe bu Sud FM seen rajo bépp waaye ak soppe yeeg am di jàmm yi ñi ci diaspora bi e, jànkati alxuraan yi sëriñ daara yi donga yi nekkoon ci daara ji te bër yéen ñëpp ñoo ngi leen di ndokkeel sëfoor si jaaykati xar yi nga xamante ne noppi nañ ba ñibbi di wàññi téer yi nga xam ne ña ngi nelaw yeewooguñ yéen ñëpp ñoo ngi leen di ndokkeel di leen ñaanal julli jàmm mbokk yi wa kullu aamin wa antum bi alfi alfi xayr wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu